waaw mooy yor. aw da ngeen def yéen si jàmm. waaw mais alhamdulilah laay wax ak sant yàlla parce que euh, lii nii daal dafa rëy lii daal wax dëgg yàlla yombul affaire bu doy waar la affaire boo xamante ne bett na waa Sénégal parce que lii du euh, neexee na lii surprise la si ñun. comprendre parce que Macky Sall dañu koo nëbb. billaahi wax dëgg yàlla surtout loolu. waaw man lu may wax mooy lu ma gën a tax ma gën a kontaan mooy. ku nga tuddee Laay Wàdd fàttewul démb dafa jàpp kóllëre ba léegi Macky Sall nañ ko bàyyi mu liggéey man loolu laa am lu may wax ñun ay ndaw nañ ñun ay jeunesse nañ ñoo yor jeunesse bi mais Macky nañ ko bàyyi mu liggéey ndax mi ngi si projet yi wóor waaw loolu laa am lu may wax nekk projet yeeg waaw waaw gisuñu xam nga rek xam nga rek waaw ñu ngi waajal yaa mu gën a xam am na benn série bu ñuy waajal sax bu war a daw nii léegi si koor gi di wax soppee zimo yi nañ xaar loolu mi ngi ñëw ñu ànd seen média bi yëpp ñu liggéey. pour ñëw wasaar. pare na pour ñëw. pare ah. na barke Serigne Touba. ragaluñu parce que Wally Seck moo suñu papa moo tax ragaluñu. waaw moo tax suñu ràmba. li ñu song dañ koy daan ndax Wally Seck. barke Serigne Touba. waaw jaajëf frère.